asalaamaaleykum sama gars yi bàyyi yéen ci jàmm nuyu naa leen de waa tey maa ci naaj bi de yee yee non mais naaj bi tamit ni muy manqué <laughs> ci yaram mais naaj am na importance de tey daal ci naaj bi laa leen fas yéene nuyoo jox leen seen menu du jour sa gannaaw bi ma leen sàggalee nag sama gars yi aw ma seen fay euh, tey nag bëgg naa ñu voyager tuuti dem ba Asie euh, pourquoi pas parce que am na ñu bëri ñuy laajte ci commentaire yi euh, Alphie Cuisine dugal recette crevettes yi donc pourquoi pas ay nouilles sautées aux crevettes bu saf-saf boo xamante ne Euh, champignon ngi ci euh, pousse de bambou mi ngi ci euh, crevette yaa ngi ci nouille yaa ngi ci nga xamante ne bu ñu koy lekk sax pourquoi pas ñu dem jël suñu ay baguette comme ni ko chinois yi di defee daal di koy déguster donc tey sama gaa yi bëgg naa leen dugal Alphie Cuisine ñu dem ba Asie dem ba Japon wala Chine daal di fay jëli ay nouilles sautées aux crevettes li mu neex ëpp na li mu saf ëpp na ma ko partagé ndaw ak yéen sama gars yi ci noonu fa di tàkkee oto di jàll yéen a ngi seen jaune noir di ma fàttali euh, taxi Sénégal yi day tàkk waaw waaw donc ñu ngoog sans plus ñu dugg rapidement ci cuisine bi mijoté ay nouilles sautées aux sama gars yi jaajëfal naa leen nee la Alphie Cuisine lay doon jaajëfal sama team Alphie Cuisine waa ay ci sama gars yi kon bagage yaa ngoog Euh, pour nuy nuy sauté yi wala vermicelle chinoise sauté nu ko gars yi waxee rek noonu la euh, crevette yaa ngoog euh, poivron vert soble laaj gingembre tuuti kaani ak courgette sauce yaa ngoog sauce soja sauce ñokmaan sauce huître vermicelle chinoise yaa ngoog wala nuy tuuti coriandre ak tuuti oignon vert ak champignon yi nga xamante ni dañ ko dañ koy hydraté waat pour mën ko mayaat ndox parce que biñ koy jënd dafa woowoon donc li ñuy jëkk def mooy dañuy euh, defar euh, nouilles yi wala vermicelle chinoise bi ñu ñuy teg ndox ba mu bax ñu jël paquet vermicelle bi def ko ci biir daal di fay gaz bi nag sànni ci tuuti xorom pour mu bañ a lewet parce que genre recette yi dafay naqari assaisonné su fekkee euh, xoromuñu ndox bi nga xam ni moom mooy ñëw hydraté waat Euh, vermicelle bi léegi ñu bàyyi ko fa benn cinq minutes ba nga xam ni naan na tuuti ci ndox bi xaw a màndi tuuti euh, nga xam ni day nooy ngook gis nga moment bi ni aspect bi changé su ko defee nag ñu segg ko daal di koy yelende ba mu set ci robinet bi bàyyi ko noonu réserver ko de côté parce que moom ci kanam lay ñëw léegi nag ñu def dëwlin njëkk sote crevette yi parce que crevette moom xam nga euh, bala muy neex mu bañ a yàgg ci taal bi benn deux minutes moom bu fa yàggee bu ko fa euh, bu yàggee ci taal bi sax mooy defe naa ëpp na donc li ñuy njëkk def mooy dañ koy njëkk tiital sauté ko benn une minute une minute trente daal di koy yàq nag ci génne ko carrément te koy tege ko de côté ñëw ci légume bi ñëw ci nouilles yi euh, daal jëlaat crevette bi def ko ci donc mi nga gis nga couleur bi changé na mu nekk ay crevette grise ngoog mu nekk ay crevette grise yoo xamante ni euh, ñaari version laa defar boo xam ni dama ci def crevette ak beneen boo xamante ni dama ko def ak poulet pour ñi nga xamante ni duñu lekk crevette donc loolu tamit euh, c'est bon ñu préciser ko léegi nag ñu ñëw ci soble bi euh, courgette bi laaj gingembre ak kaani rosi ko moom laa moom laa daggat ni en lamelle ñëw nag euh, ak poivron vert donc moom la ñuy ñëw euh, def noonu ci poêle bi vite fait euh, daal di koy sauté moom tamit laataa ñu ciy ñëw def assaisonnement yi nga xamante ni moom la ñu utiliser recette bi nag defuma ci xorom parce que dama utiliser sauce ñokmaan sauce soja ak sauce huître bi nga xamante ni dafa saf ba pare donc moom laa utiliser comme ni ko asiatique yi di defee nga xam ni moom mooy ñuy servir de de base pour assaisonner euh, vermicelle sauté yi wala nouille sauté bi nga xamante ni moom la ñu andi tey donc rapidement ñu mélanger nga xamante ni da ngay am da ngay garder croquant wu euh, soble bi ak croquant wu euh, kii bi courgette bi gis nga dolliwaat nañu tuuti dëwlin donc dañuy brasser def aller retour yëngal champignon bi nag ñëw moment bi moom it dugg ci champignon bi. Euh, moom mooy champignon parfumé bi nga xamante ne soo ko xoolee daf lay xaw a jox aspect yéet man bi ma koy xool yéet la ma gën a nduru mais guub bu neex la am nag guub bu neex moom moo dàq champignon bi nga xam ni moom la ñuy faral di utiliser di ko def ci neem ba léegi bokkul gis nga moom soo ko xoolee moom mooy champignon parfumé bi su ngeen demee ci rayon asiatique yi rek euh, am na fa profité nuyu waale waa team Alphie bi nga xamante ne ñoo nekk Chine ak euh, Japon ndax ñoom tey seen dëkk lañu la ñu dem waa Paris waa Suisse nag da ngeen di bàyyi ñu nuyu waa waa Asie waaw léegi nag sauce soja bi ngoog am na ñoo xam ne dañ naan ma euh, sauce soja bi dafa am alcool mais sooy jënd da liir composition bi nga xam ne moo ci nekk am na yoo xamante ni euh, amul alcool benn yoon ak et puis sauce ñokmaan bi ñëw nga xamante ni soo ci defee sauce moment bi da am benn sauce benn benn tooy boo xam ne moom mooy ñëw recevoir euh, vermicelle vermicelle bi wala nouilles yi nga xam ni moom la ñu doon baxal sànq donc mu ngoog fi mu nekk nii nag da ngay yëngal li ma doon wax léegi nee naa la utiliser wu ma xorom utiliser wu ma poobar utiliser wu ma dara parce que dama ko defee comme ni ko asiatique yi di defee su fekkee am nga pousse de soja mën nga ko ci def su fekkee am nga bambu tamit pousse de bambu daggat ba mu sew def ko ci mais bon ki ma fi yor de fu bëri ji ko du ko lekk moo tax it dama def euh, changer ko ak quelques légumes donc yaa ngi gis euh, vermicelle baa ngi noonu di ci ñëw muy nuy yi nuy yi tamit bëri na variété donc ñun mooy bii moom la ñuy faral di utiliser di ko def ci neem di ko def ci salade chinoise donc tey moom la ñu sauté nii pour andi beneen méthode boo xamante ni euh, mën nañ ko lekkee vermicelle chinoise yi wala nuy yi nga xamante ni gis nañ ni léegi dafa bëri trop euh, Sénégal te dafa nekk nag ay repas yu neex yoo xamante ni yu léger yoo xamante ni Euh, ku nekk mën nga ko mën nga ko adapté tamit ci sa ci sa régime alimentaire et puis fait dafa nekk ay recettes yoo xamante ni dañu dañu rapide parce que lépp ngay defandoo ci poêle bi rek daal di koy sauté assaisonné ba mu neex donc crevette yaa ngi noonu ñoom ñu ñëw euh, fekk si ñi ci poêle bi nga xam ne mariage ba dafay dafay riis waaw léegi nag nañ yëngal yëngal moo ci des dolliwaat sauce soja parce que au fur et mesure ngay defar da ngay ñam dolliwaat sauce soja dolli sauce huître si c'est nécessaire jël sa persil chinois def ko ci parce que li ci des ñu fay ko bëriwul su ko defee nag nga daal di yëngal yëngal ba nga xamante ni sauce bi moment bi moom ma fekkoon ma am wokk ngéwal yëngu wokk rek nga xamante ne da ngay brasé yëpp jaxasoo mais ba tey ak bool bi tamit ku amul ndey namp maam ba léegi ba léegi baax na donc gis nga nag moment bi yëf yaa ngi mel ni ceebu yàpp la ilaha illallah waaw waaw waaw ay itam bu moment yii nii boo toogee ba xet bi commencé ñëw da ngay saalit sax ngay saalit te dafa tombe sax tey ma xiif nii waaw dafa tombe nii ma xiif donc mi ngoog lépp ñëw na lépp lépp lépp lépp lépp pare na nga rectifier sa assaisonnement crevette yaa ngi noonu oignon vert bi def ko ci cru nga xam ne dangay lekk di dajaale karaj yi croustillant boobu nga xamante ni euh, ngëneel rek lay lay andi ko defee nag nga daal di préparer sa ay plat daal di yàq nag yëf yi da nga koy def combat wu kii euh, da nga koy engage combat boo xamante ne amul préliminaire yow yàkkaar rek jël sa fourchette dem lekk amul jékki-jékkal amul dara nuy sauté aux crevettes yaa ngoog war a vermicelle chinois sauté aux crevettes ndax dafa ci am gune yoo xamante ni ci internet bi la ñu ne di corriger seen naan ma tata xam nga buñ la nee tata nga xam ne ay xale lañu tata li nga waxee nii kenn du ko waxee noonu nee lañ koy waxee mooy ba tey yàlla baax ba tey baax na man moom comme bañu ma critique te bañu ma ku ma ku ma rectifier ndax lépp ci la ci la yam ñun dañuy jàng dañuy jàng rek saa yoo xëyee ñii de la seetaan mën nañ la jàngal donc ku nekk ak domaine bi nga foore nuy sauté wala vermicelle chinoise sauté donc mi ngi nag sama gars yi jaajëfal naa leen moment bi nag tombé na may ñam tombé na ma jël sama plate daal di tàmbalee lekk fi mu nekk nii tàggu leen moo ci des tàggu leen moo ci des xaaral xaaral ma ñam xaaral ma ñam xaaral ma ñam wuyul wuyul Mm. Mm. jaajëfal naa leen sama gars yi on se donne très prochainement pour beneen recette jaajëf team Alphie Cuisine n'oubliez pas di partager ak di aimer recette yi kenn du yéen sama gars yi nee naa la kenn du yéen de.